Hello, hello la MIFA, j'espère que vous allez bien. Alors merci et de bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr la chaîne des news, la chaîne des plus belles chroniques. Non mais je vous jure la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Mais vous attendez quoi au fait abonnez-vous et activez en même temps la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.

Alors, Achmed est un rappeur sénégalais étant actuellement en Italie qui fait ses processus petit à petit. un rappeur sénégalais bien sûr mais je suis ñu toll ngi Italie di job petit à petit Il a ngi commencé sa carrière avec le nom de MEK après quelques temps il a décidé d'arrêter li nga de Modi totalement après si le gis jeunes yu mel ni am talent macha allah moom tamit dit, mais bon pourquoi pas moi parce que ñi may gis ni ëpp ñuma talent lepp lu nekk ci ñom mo ngi ci man bu dee talent rek ëpp ñu ma ko coup, ci la recommencé waat sa carrière et euh, a relancé ses projets en 2020 ñëwaat ak benen nom qui est Ahmed dafa ñëwaat ak un tur bu bees moo nekk Ahmed bi ma di wax étant aussi indicatif de son vrai nom Mohamed Masha'Allah, Mohamed après quelques temps il a la un single intitulé 02 Javel disponible sur Audiomack et grâce à son talent et ses réactions sur YouTube instant bi mu 7000 abonnés Waouh, pas mal du tout mais aussi euh, mettre en ligne un nouveau sound au nom de Inondation sorti le 4 septembre et en même temps a na un sound aussi au nom de Maman di ci rendre hommage à toutes les mamans qui na ko le 10 septembre passé moom nak euh, jotna na ak euh, Papounet et euh, certaines maisons de disques comme Askan pour son premier projet mais instant est en préparation de son projet philosophie de 5 titres et en featuring avec quelques rappeurs Guy, qui nak moy Ahmed légui ce qu'on va faire moy dañuy dem xoli ben sound bi nga xamante ni c'est intitulé inondation ñëwaat légui légui nañ dem joxe ci suñu réaction après ngeen mëna wax seen xalaat ci commentaire let's go saaku ceeb moo koy faj mais yéen lan moo tax gars yi yab leen ba lu lu leen dal rek gars yi leen ceeb est-ce que yéen a koy laajte lu leen dal ok sama gars yi boo xoolee le sound a pour titre inondation j'espère bien que ne xam ngeen na lu inondation mooy fu ndox mu bari di taa foo xamante ne nii ndox mu baree bari bari moo fay taa doo am foo jaar doo mën a dem fenn loolu mooy inondation ñu indil leen ceeb boo leen inondé ñu indi leen ceeb ngeen corona ñu indi leen ceeb ngeen tuberculose ñu indi leen ceeb ngeen koso kosa ñu indi leen ceeb yeen ñu li leen dal yo mo ci yo mo ci ah. hmm. bu tawee doom foo xuus jaar dëkk bu ñëpp la fañ ku lay tek tang ñun dañu sonn si wax bi yëpp di ñu leer di ñu tuulëndë yes dafa leer bu leen dégloo gaay mu ngi naan bu tawee doo am foo xuus jaar dëkk bu ñëkk bu ñëpp lafañ ku lay teg tànk ñun dañu sonn ci wax bi duñu leer duñu tuur lëndëm gis ngeen li wax fii li mu wax fii exact li moom la ñuy dund bu leen xoolee Sénégal nekk na dëkk boo xam ne ñu bari duñ yàkkamte nawet jot non ndax lan ndax inondation yi saison pluie bu jotee rek day am diwaan yoo xam ni dañuy inondé kenn du am foo jaar surtout ñi nga xamante ne nii ndox mi day nangu seeni kër wala sax des fois muy am ay moor et c'est très difficile neexul ndox mi di du nangu seen kër yi c'est très difficile am na ñoo xam ne ndeysaan du ñu am toit maanaam du ñu am fu ñu dëkk ci école yi la ñuy mujjee loge te école yi aussi des fois nga gis euh, école yu de nga war a mën a dëkk foofu ak say njaboot en plus bu leen xoolee euh, nawet bu jotee feebar yu sew sewaan yu bari dañuy am. parce que xam ngeen fu inondé day am ay indi paludisme te paludisme na maladie vraiment elle est trop dangereuse c'est trop difficile dise la vérité gars mais état bi si parce que dañu wax ba suñu ñu ci ba duñu il a parfaitement raison li wax moo am de moom la dund ñun ginnaaw jigéen bi yaa te sa liggéey mënul mat sëkk yaakaar wu ñu ñi seen loxo jotul seen ginnaaw digg milliard te sa liggéey matul sëkk yaakaar si nguur comme yàkkamte lu dul sa wërsëg ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw euh, gaay ma wax leen ko tey personnellement et je su nawet jotee man ñoom rek laay xalaat parce que duñ am fu ñu dëkk ndox mi day nangu seeni kër et à chaque fois nguur gi ne dina ci wax wala dina ci jóg mais dara bu leen xoolee Sénégal liggéey yuñ ci commencé ba tey yeggagul moo tax mu ne yaakaar ci nguur comme yaakaar dul sa wërsëg xam nga lu dul sa wërsëg moom doo ko mës a jot loo xamante ni du su du sa wërsëg mënoo wax a wax a wax ba jot ci noonu rek la demee. monsieur président yow yaatal sangu si piscine pendant que askan wi seen bagage yëpp a ngi si biti li ngay jot every week ci si fañ na année famine moo tax pom rek doyul miskin ngi reere cere mbiskit monsieur le maire doomu dëkk bi mënuñ la gis ñoom nga fi nekkal doxoo si lu la ñor lu dul ba xasal xool ni ndox ci cin ñaata réew yi ñoo meeting xamoo li patrek politique suñ la gisee ngay defa dafe nga am visite du ministre xale yi ndaw seen bët xel mënul xàmmee microbe ñoom yaakamti nañ mu taw ba taabu ñu mën di si foo yee dafa leer xale yi ñoom loolu rek lañ yàkkamti ndeysaan parce que xamuñu dara xale xamul dara ñoom yàkkamti nañ mu taw ba ñu nekk ci di foo voilà ñoom loolu rek lañ yàkkamti alors que ndox boobu noonu bu bu taajoo moo nekk inondation bi te mooy indi feebar yu sew sewaan yi moo tax ñu naan nawet bu jotee feebar yu bari day génn. pour palme handicapé jàll dañ war di leen fopp pour mu nelaw si mën faw nga tëdd si lu wow xam ngeen loraange yi si ne yëpp chaque année ngeen di changement te si feeñ ngeen dëkk. ñi feebar feebar woo leen kañ leen ñu fi ñu tëdd soppi woo leen environnement bi bëgg def ni ñi mbët ku nekk si jàmm amul ku yàlla na toogul kese am ndax jàmm mooy bëgg mais bur yàlla rekk ak ndogalam yee jàmm mooy bëgg mais bur yàlla rekk ak ndogalam il a parfaitement raison jàmm day bëgg mais yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko jaamam waaye yeewoo jot ba ñàkkaar renti si kenn peut-être bu si ku nekk defoon loxoom léegi ngàcc bi jeex kenn jàppale wuñu surtout ñun suñu secteur bi gisuñu chef de quartier gisuñu notable gisuñu kenn ñun waa Guédiawaye sonn nañu ñun Guédiawaye dëkk waaye sonn nañu gisuñu kenn responsable boo xam ne bu sa kër xool ndox mi fu muy taay ak fu mu taayoo kenn dimbali wuñu di mastawu waa zone de captage Fatick Thiaroye Sicap Mbao ak waa Kër Massar yow gis ndox wala te nekk sa gaale moom neexul kenn Yeah, dafa leer faut gis ndox sa gàlle neexul kenn vraiment c'est euh, quelque chose boo nous ne war nañ wax parce que boo leen xoolee lieu yu bëri day à chaque fois day taa à chaque fois duñ sax bi inondation c'est trop difficile dañuy obligé kër dem di après bu bi ñu et jusqu'à présent day ñëwaat di ñëwaat duñ ci wax effort. ba mu jeex mais sama gars yi qu'on mais Achmed euh, euh, man sound bi dafa ma neex quoi vraiment te jàpp naa ni ku ko déglu rek sa yaram war na daw parce que li mu wax yëpp moo am li mu wax yëpp moom la ñuy dund Galsen inondation yi metti na nañ ci jóg ngir yàlla nañ ci jóg. li wax en tout cas man euh, personnellement les lyrics touchent. touche lyrics yi daf gars gis une vidéo du jour bi tey ça parler si ki nga xamante ne ni euh, donc wax leen un xalaat ci nous vous leen gisee Ahmed ak tamit loo leen koy euh, conseiller à vos claviers Alors, comment ça les Je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel, ma page Facebook bien sûr Kenza 221, sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager mais aussi de liker. Gros bisous à vous, portez-vous bien.